إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala ñi ngi seede ne yàlla rekk moo yeyoo ñu koy jaamu ñi ngi seede ne yonent yàlla muhammad mooy jaam bi mu yónni woon ci ñun doyloo ko moom rekk moo am droit jàngale naka la ñuy jaamoo suñu boroom jalla waala looloo tax ba jullit dafay gëm népp jaam la mboolem lu muy def ci kaw suuf da cay bàyyi xel boroomam bàyyi ci xel ab sangam loolu nag nañu xam ne suñu boroom daa am mbir yu mu doxale suñu diggante ak moom mu am mbir yu mu doxale suñu diggante ñunu neen ñun jaam yi looloo tax ba suñu xutbab tey bii ñu ngi koy jëmale ban taxawaay lu jullit war a taxaw digganteem ak jaami yàlla yi muy dundal ci kaw suuf mbokk jullit jullit mooy kiy dëggu digganteem ak boroomam jaamu gi muy jaamu yàlla mu xam ni moog yàlla dong la concerné du ndeyam du baayam du kenn yàlla lay jaamu la yàlla digle kenn mënul tee mu def ko la yàlla tere kenn mënul tee mu ba ko lépp lu muy jëf da cay sàkku ngërëmal yàlla waaye gannaaw loolu jullit dafa war a dëggu digganteem ak jaami yàlla yi sellal jëflante ga muy jëflante ak ñoom loolu nag mbokk la nga xamee ne nii moom la ci jullit di jiital mooy lan mooy ngërëmal yàlla ci sama jëflante ak jaami yàlla yi kookee wayjur la doom la dëkkandoo la yéeféer la kum mën a doon jullit balaa xalaat la nga xamee ne ni mooy lu ko xelam may day jëkk a xalaat sama borom yàlla lan la ma sant sama diggante ak kii loolu tax wareef la ci bépp jullit mu jàng teggiini lislaam jàngale diggante yaag sa jaami borom bi jalla waala ku nekk ana ban aq mooy bi nga xam ne moom nga ko yoroon mbokk da ngay gis ñaar yooyu day mooy rafetal ab nekkin mooy jullit bi jàng ba xam ndigali yàlla ndax suñu borom moo ñu bind moo ñu xam moo xam lan mooy tax suñ diggante rafet moo xam lu tax suñ diggante ñaaw loolu boo ko jàngee ba pare nag nga dëggu ca def ko ca yàlla tax loole rek muy mën a jur résultat bu sax amma lépp looy def ci lu baax ca yaa nga ca làq intérêt personnel boo xam ne yàlla taxut su amee départ it du am mukk ak mucc looloo tax ba mbokk jullit wareef la ci ñun ñu xam masalan tey ji doomu aadama yi bu ñu xëyee suba dañuy tasaaroo ku nekk yaa ngi jëm di sàkku ji wërsëgu yàlla loolu mbokk ak jaamu yàlla la génn sa kër sàkku ji wërsëgu yàlla jaamu yàlla la muy ab liggéey liggéey boobee na doon kay day jaay dooleem kay di jaay xam-xamam kay jënd marchandise bu muy jaay waaye lépp am jaay la rek suñu borom yàlla ne ay yéen jaam yi su ngeen dee jaayante fexe leen moytu riba loolu tax ba jullit heure bu jógee bay dugg ci am njaay wala koo xam ne da koy liggéeyal la muy jëkk a xool mooy lii may jëm ndax dagan naam déet marchandise mi ndax dagan naa jaay place bii ñi ma bëgg a embaucher ndax dagan naa liggéey contrat bi ma bëgg a signé nan la ko yàlla gisi loolu mbokk moo war a jëkk a nekk position jullit balaa dugg ci lenn lu mu mën a doon su ko defee nga xam ne njaay moomu ak jaamu yàlla la nga sakku sa ngërëmal boroom bañ caa sàkku noo cay dajalee alal ju bari ca xam ne lu tuuti ca barkeel day du yem mukk ak lu bari lu ànd ak mbirum yàlla képp koy jëflanteel nga sakku mu gërëm jëflante boobu moom la borom bi di wax an taraadin minkum jullit du jëflanteeg nit nax ko jullit du jëflanteeg nit kooku dem di rëccu loolee xolam tàng jullit mooy ki nga xam ne war naa góorgóorlu ba kum jëflanteel ci wàllu liggéey bu mu mën a doon commerce laak liggéey dooleeg lu mu mën a doon su ngeen teqali ko rek mu kontaan na doon jullit la na doon yéeféer la ndax liggéey boobu ngay liggéey yaa ngi cay woote ci lislaam bari na ko bañ diine lislaam jullit yëm jëflanteel ñoo tax ñu bañ ko bari na ko bëgg lislaam ba dugg ca jullit yëm jëflanteel moo tax mu dugg ca loolu moo tax ba suñu borom lënkale loolu nga xam ne mooy liggéey boobu ak commerce boobu ak jaamu yàlla mu ne ay yéen jullit ñi su ngeen déggee nodd àjjuma bàyyi leen njaayante bi ak liggéey bi dem wuy ji ca jàkka ja su julli ga pare dellu leen ci liggéey ba loolu muy wane ni ki santaane julli ca jàkka ja moo santaane liggéey ngërëm la ngay sakku ca jàkka ja ngërëm loolu ngay war a sakku ci liggéey ba ngay liggéey ak liggéey ba bépp forme liggéey boo xam ne da koy da nga ko ci liggéey ay yéen boo ko jullit jullit du liggéey ci lu xaraam alal ju xaraam dalay alak àdduna di la alak àllaaxira jullit du dimbalante ci lenn lu xaraam suñu borom yàlla jalla wa ala nee na lépp lu ngeen di dimbalante na doon loo xamee ne nii dafay jur njëriñ ak ragal yàlla bépp dimbalante boo xam ne dafay yegg ci lu xaraam suñu borom mu ni bu leen ko def loolu tax yàlla lan la tere mooy naan sàngara yonent bi alayhi salaam nee na nag dana am juróom-ñeenti nit ñu ànd ak rëbbum yàlla te ñoom naanuñu sàngara juróom-ñeenti nit mu ne yàlla rëbb na ci sàngara fukki nit commencé ka koy nal ca tool ba ka kay denc ka kay yenu ka kay jaay ka kay xelli ka kay nangam ba lim ci fukk et pourtant kenn naan juróom-ñeenti lu leen ci yóbbaale mooy dañoo def effort ba sàngara sa yegg ci gémmiñu ko koy naan loolu benn misaal la ci nag ci mboolemi bakkaar yi koo dimbali ci njaaloo koo dimbali ci sàcc koo dimbali ci riba koo dimbali ci lu mu mën a doon xamal ne yaa ngi dugg ci loolu naka noonu it mbokk lépp lu baax koo ci dimbali même boo ko deful yàlla bindal la tuyaaba ju toll noonu jullit mbokk mooy ki nga xam ne mooy xool ne alal moyen la pour am ngërëmal yàlla waaye alal du doon moyen boo xam ne pour dajale rek bari le loolu tax alalam joojee la cay wareef ci zakat da koy jël génne ko ca la cay wareef ci dimbali da cay jël génne ko ca jaamu yàlla bi jaaxale ba ñoo leb si ko day yàkkamti lebal ko sakku ngërëmal yàlla ci lan yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne sa mbokkum julit am na la nga xamee ni nii moom mooy soxla soxla boobee nga teggil ko ko suñu borom yàlla dana la teggil ci tiis yooyu am bi si penc nga yaakaar payug yàlla comme na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxee ci yàlla ni muy fayee ka nga xam ne day leb la bor ndax am boo ko jullit waaye bu la yàlla nattoo ba nga am borit bor boobu it day doon loo xam ne da nga koy ittewoo yow jullit di yàkkamti di ñaan yàlla yàlla yombalal la ba nga dem fay ko te it mbokk xamal ne bokk na ci tuyaaba yu rëy mooy allazina yuufuuna bi ahdihim ñii matal seen dig yàlla da leen a bëgg da leen a gërëm lebal ma dix mille francs ba fin du mois mu lebal la fin de mois nga ñëw delloo ko dix mille yaa nga def def joo xam ne tuyaaba la ju yàlla jalla wa ala gërëm suñu borom yàlla subhanahu wa taala bokk na ci li mu wax moytu leen bokkoo yam na uunal maa uun di tere la nga xamee ne nii mooy ay jëfandukaay te mooy mbokk julit sa mbokkum julit bu dee jaaxle na ñëw sakku ci yow loo xam ne daa bëgg nga abal ko ko loolee na doon ab oto lay sakku ci yow ak ay njëfanukaay lum sakku ci yow nga lay xamal ne buntu jaamu yàlla ngoog abal ko ci yàlla tax waaye yow mi ko ab it delloo ko ci yàlla tax heure boo xamee ne ni am na lu ci sikk sikk boobee jëm koo réparé su mënul nga fay ko njëgg wala nga dellu si ci moom leeral ko ko ba mu jéggal la lii mbokk la jul war a taxawee julit war a bàyyi xel ci ne lépp loo xam ne nii alalu mbokkum julit la araam na ci moom mu cay jël la gën a néew lépp loo xam ne derub mbokk julit la araam na ca moom mu cay wax la gën a ñaaw lu gën a néew ci ñaaw lépp loo xam ne deretu mbokk julitam la araam na ci moom mu koy taar mu koy tuur mbokk loolu safaanoo lool ak li nga xam ne dégg nañ ko ci fan yi kilifa diine di woote ne am na day ñii day ñoo xam ne lii sëñ diw jàngale woon ñoom dañoo safaanoo ak moom loolee la ñuy wax da koy dingat loolee tax ba am mbooloo mu ko gëm wootante sur le plan international réseaux sociaux yëpp di ko dégg ne bi sàngam nañ daje arme bu waaye am na ko indi ñu dal kan ndax ca chrétien ya ndax ca yahud ya ndax ca animiste ya la ñu dem dal ci suñuy mbokk jullit mbokk woote boobu jullit du ko wootee jullit day woote gis ay mbokk jullitam yu nekk ci ak noonu mu jóg taxaw xool naka la leen di yéwénali suñu borom yàlla mu ne laa xayra fi kasirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna annaas wa man yafal zalika ibtigaa wajhi llah fa sa nutihi ajran azima mi ngi noonu fa sa fa nutihi ajran azima mbokk jullit mooy ki nga xam ne mooy woote na ah diggante diw ak diw de yàqu na diggante mbooloo diw ak mbooloo diw de yàqu na nañ sol suñu dàll nañ daje fexe nuñ leen defere waaye jullit di woote mbokk jullitam kaa ñu dem tal histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki day dana dese dara ci diineem tànk tuurul deret bu xaraam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari jullit buñ dajee ci seeni arme ki rey ak kañu rey yëpp safara la jëm looloo tax ba yow ndawal jullit ngal la waay góorgóorlu wala bokk ci loolu mag àndal ak sa xel ñay woote ñooñu seen doom du ca bokk seen soxna du ca bokk amul koo gis muy woote fitna ci réew mi ak feneen nga xool mbooloo ba riir topp ko nga gis ca doomam abadan doomam du ca bokk rakkam du ca bokk soxnaam du ca bokk kon ku leen woo ci violence bañ leen ku leen woo jëmale ngir ngeen toj seen bopp mbokk jullit bañ leen mbokk jullit problème buñ mën a am war nañoo am nuñ ko mën a régler ci toog ci diisoo ci waxtaan waaye du ay xeex xeex musul jël musul am njëriñ xatta yéeféer yi tubaab bi sax dañ naan la meilleure façon de gagner une guerre c'est de l'éviter xeex kenn du ci gagner guerre kenn du ci gagner soo ci bëggee gagner fexeel ba mu bañ a am lii mbokk kon mooy la nga xamee ni ku nekk war naa góorgóorlu ci jullit ñi di jéem a bàyyi xel loolu kemtaleel kattanam ay yéen mbokk jullit xam leen ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala day lépp loo xamee ni ni dafa aju ci ñun amul lenn loo xam ne nii loolu la ci sàggane su ko defee bokk na ci loolu la nga xam ne mooy kóolute ay yow mbokk jullit xamal ne poste bi ñu la nomi kóolute la yàlla dana la ko laaj kees gi kóolute la yàlla dana la ko laaj waa ji ñëw jël alalam dénk la kóolute la yàlla dana la ko laaj ki nga xam ne daa jël alal joxaloo la ko ay zakkaat la ak lu mu mën a doon kóolute la yàlla dan la ko laaj suñu borom yàlla subhanahu wa taala yowm alqiyaama képp koo xamee ne nii mataloon na kóolute ga ko yàlla nattoo woon da nga bokk ci ñu yàlla gërëm yayoo ñooy dëkk firdaws waaye bokk na ñuy gën a dajeeg merum yàlla mooy ñi nga xam ne dañ leen a amoon kóolute teg ko seen loxo ba pare ñu daal di war kóolute googee looloo tax bul xool mukk jugement société bi bul xool contrôleur bi may contrôler bul xool inspecteur bi may inspecter yow ndawal jullit foo mën a nekk ci liggéey foo mën a nekk ci kees foo mën a nekk ci responsabilité xoolal contrôle bala sa borom yàlla nar a contrôler yowmal qiyaama xoolal rendre compte ba nga nar a rendre compte yowmal qiyaama suñu borom yàlla mu ne inna allaha ya'murukum an tu'addul amaanaati ila ahliha suñu borom nee na nañ kóolute gi nañ ko yóbbu na nga xam ne noonu la mate delloo ko la nga xamee ne ni mooy seen ña ko yeyoo ay yéen mbokku jullit góor-góorlu leen xam ne jullit mooy ki nga xam ne day rafetal jëm ci ñëpp jullit dafa war a góor-góorlu même ay noonam mu rafetal jëm ci ñoom suñu borom yàlla mu ne asa llahu an yajala baynakum wa bayna lazina aadaytum minhum mawadda ñii nga noonoon tey ñii nga noonoon tey suñu borom yàlla nee na su ma neexee wëlbati ko noonoo googu def ko muy la nga xam ne mooy jofeel kon moom nit ki boo noonu ak moom moytul jëf-jëf ju ñaaw wala wax ju ñaaw joo xam ne bis bu seen defe seen diggante defaroo it heure bu ci xelam demee xolom ñàgg heure bu ci sa xel demee xolom ñàgg loolu ñu bàyyi ko xel bu baax ña gën a yey ci ñi nga xam ne dañoo war a taxaw ci ñoom mbokk jullit mooy la nga xam ni suñuy mbokk jullit la jullit ak mbokk jullitam dañoo mel ne benn jëm da ngaa war a góor góorlu sa kéemtaleel kattan boo nekk ñaan yàlla yàlla boo faatu fekki ne yaa ngi yoral benn jullit ak ca alalam ci deram ci lum mën a doon waaye it ngay góorgóorlu heure boo xëyee naka la mën a def ba jullit ñi jëriñoo ci man jullit mooy kiy ñaan yàlla jëriñoo ci man yonent bi aleyhi salaam mu ne xayru naas anfaahum lin naas ki gën ci nit ñi mooy ki ëppal doomu aadama yi njëriñ waaye gannaaw loolu it bàyyil xel ña la gën a jege mooy ña nga xamee ne nii mooy say mbokk lañu rawatina yéen jeunesse bi ñi nga toll ci jamono boo xam ne xamatu leen lan mooy mbokk waaye mbokk mbokk yàlla moo ko def muy seen diggante sàmm leen mbokk gi def ci lu baax même bu doon ay yéeféer lañu sax defal jëm ci ñoom lu baax waaye rawatina it la nga xam ne mooy dëkkandoo yi mbokk sa dëkkandoo sa mbokk la jullit du seetaan mukk dëkkandoom ak lor di dalam dal ci kawam waxumaa nag moom mi dem di lor dëkkandoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min gëmul gëmul gëmul saxaaba yi ne ko koo kan la yu mu yàlla yónni mu ne koo xam ne ay dëkkandoom wóoluwuñu ayam ragal làmmiñam ragal ay jëfam kooku bokkul ko gëm mbokk noonu la nga koy toppee ba baa nag yegsi ci njaboot gi nga jiite yonent bi alayhi salaam nee na xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam ca maa gën ci sama njaboot ca mooy njaboot gi nga nekk ak ñoom ci jàmm ca xam na lay jàmm mooy nga tàggat leen teg leen ci li yàlla bëgg lay jàmm mooy nga tàggat leen xiirtal leen ñuy taxaw di julli duñ ko manqué xiirtal leen ci laab gi duñ ko manqué bu dee jigéen ña nga taxaw ci ñoom ñu muur seen awra lii mooy la nga xam ne mooy mbaax ga yàlla subhanahu wa taala gërëm waaye bu doon ginaar suba ginaar ngoon ay lalu or lu ne nga def ko amma la yàlla santaane woon qu anfusakum wa ahlikum naaran loolu nga sàkkee na ko mbokk yaa ngi mel ne koo xam ne nii da ngay bind ci ndox loolee nga def du la jëriñ dara ci kanamu yàlla ba pare la nga xam ne mooy aqaba mi ngi taxaw di la xaar yowmal qiyaama lii mbokk mooy la nga xam ne nii ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu bàyyi waat ko xel su ko defee ñi ngi ñaan bépp julit jéem a góorgóorlu doon koo xam ne taxawaayam ci suuf day rafet la la koy may wax nañ ko ci njëlbeen wareef la ci ñun ku nekk ci ñun mu jéem a jàng nan la yàlla santaane yan àq laa yoral samay wayjur yan àq laa yoral sama njaboot man kat ci nangam lay liggéey yan àq li lislaam wax noonu laa fa war a taxawe lii boo ko xamee gannaaw ba nag nga boole ko ak muñ mbokk jukko woo jukko ju rafet suñu borom nee na wa maa yulaqaaha illa lazina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu xazin azim fexe ba nit ñi di def ci yow lu bon yow nga leen di def lu baax ñu lay tooñ ngay jéggale sax ci lu baax suñu borom nee na ku muñ rek ko man ku am cir rek ko man loolu tax la koy tëj mooy ñaan yàlla zu xazin azim ngay ñaan yàlla yàlla na yàlla yóbbu la ci ko yëgën a kawe loolu la yonent bi alei salaam doon ñaan allahuma ahdini ila ahsani al axlaq wal amal la yahdi li ahsaniha ila ant wa qini sayi'aha la yaqi sayi'aha ila ant ay yàlla yan nag ma yóbbu ci jukko yi gën a kawe kenn du ca yegge lu dul koo ci yeggale yàlla nag ma musal jukko yu bon yi kenn du ci mucc lu dul koo ci muccale mbokk ñett yi ku nekk ñun war koo bàyyi xel mooy jàngal ba xam li yàlla santaane nekkal koo xamee ne nii da ngay muñ muñ gu rafet ngiree sa jëflante ak jaami yàlla yi mën a doon lu rafet gannaaw bi tamit del ñaan yàlla foo mën a toll yàlla rafetal la nga xam ne mooy say jukko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na ki may gën a jege ci yéen yowmal qiyaama mooy ki gënoon rafet jukko yéen jullit ñi la nga xam ne mooy gannaaw ngëm yàlla balance yi ñuy teg ci bis pénc amul benn poids bu ci gën a diis la nga xam ne koo xam ne dafa rafetoon jukko ca mooy rafetal la nga xam ne digganteem ak jaami yàlla yal na yàlla yóbbu ñu ca jukko yee gën a rafet yal na yàlla musal ñu jukko yee jukko yu ñaaw ya yal nañu yàlla musal ñuy tooñ kenn ci ay jaamam yal nañu yàlla musal ñu muñ tooñ ya ñuy tooñ yal na yàlla musal ñu rafetal jëmale ci ay jaamam yal na yàlla wërsëgal ñu rafetal diggante suñu diggante ak diggante suñu boroom yal na yàlla rafetal suñu mucc jéggal ñu jéggal bépp julit allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين